docteur Fatou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, tey jii yan priorité la USAID am ci wàllu wérgu yaram. en fait USAID euh, euh, mbébétam ci at yi ñu nekk nii ak at yi di ñëw mooy ñoŋal wérgu yaramu population sénégalaise yi. li ñu bëgg mooy accompagner le ministère de la santé pour moo gën ñoŋal système de santé bi de façon à ce ñu wàññi deeteelu yaay yi ak ñii di soog a juddu ak xale yi nga xam ne amaguñu juróomi at parce que gis nañ ne suñu réew mi euh, euh, dee yooyu dañu bëri torop donc euh, objectif bi ñu am daal mooy jàppale ministère de la santé ci santé maternelle bi wér-gu-yaramu xale yi di soo a juddu ak wér-gu-yaramu xale yi nga xam ne amaguñu juróomi at et aussi dañu bëgg a xeex ci maladie infectieuse yi fi am maladie émergente yi et puis jàppale gouvernement bi ci xeex bi ñuy xeex ci wàllu sida VIH sida mu mel ni def di ay mbëbët yoo xam ne mën nañu leen méngale ak li nga xam ne mooy xemmemteefu suñu ministère de la santé euh, tout à fait parce que li ñu bi ñu am nga xam ne dañ ko élaborer dañ ko élaborer ak waa ministère de la santé ñoom ñoo ñu jàppale depuis bi ñu commencé di élaborer ba bi ñu ko lancé ba mise en œuvre bi dañu ànd ak ñoom ñu koy def te li ñu def nii dañ ko def ci document bi nga xam ne ministère de la santé moom la tënk pour wàllu système de santé bi mooy PNDSS programme national de développement sanitaire et social bi nga xam ne moom la ministère di élaborer tous les dix ans boobu document la ñu jël si la ñu sukkandikoo pour élaborer suñu programme bi ñu nekk nii 2021 2026. est-ce que USAID am na ay partenaires yoo xam ne dafa lëngoog ñoom. ci nit ñuy jëmale activités yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci wàllu santé fii ci Sénégal. loolu dëgg la parce que euh, dañuy am programme yoo xam ne cinq ans lañ koy def mais du ñun waa USAID ñoo koy defal suñu bopp directement. dañuy lëngaloo ak ay partenaires. yoo xam ne ñooy mettre en œuvre programme bi sur le terrain. et donc am nañu ay partenaires yoo nga xam ne des partenaires bilatéraux ñoo xam ne ñooy defal programme bi. am nañ aussi ay mécanismes ya nga xam ne ñun dañuy jox ko suñuy ressources directement gouvernement bi mu nekk gouvernement ak gouvernement. gouvernement mel ni gouvernement des États-Unis mooy jox ko xaalis gouvernement du Sénégal pour ñu def ay activité sur le terrain. aussi ñu am aussi ay euh, activité yoo xam ne niveau de Washington la ñu nekk mais ñooñu tamit mën na dañuy ressources au niveau du pays pour mettre en œuvre des activités euh, sur le terrain. ci wàllu jéego wàllu réalisation tey jii lan nga ñu mën a limal ci li nga xam ne USAID def na ko. lu bari mën naa wax ne lu bari la mais mën nañ ci jukki yenn yu bari pour ñu commencer rek mën nañ wax ci lutte contre le paludisme gis nañu Sénégal si euh, at yi passé paludisme bi daal na fi def ay ravages mais maintenant gis nañ fépp ne yépp wàññeeku nañ parce que on a un programme bi ñu wax euh, PMI président initiative du président pour le pour le paludisme. bi nga xam ne mu ñu jàppalee ministère de la santé ci loolu. am nañ aussi ay xeetu formation ya nga xam ne lëkkaloo nañ ko ak ministère ba mettre ko en place pour permettre aux prestataires yi nga xam ne dañ daan quitter seen zone yu éloigné di ñëw di def ay formation mun na ñuy bàyyi seen centre de santé wala poste de santé kenn du fa nekk léegi am nañ xeetu formation ya nga xam ne nit ki mooy déplacé wu. renforcer capacité prestataires yi foofu noonu loolu ñu ñuy wax tutorat wala mentoring wala coaching bi nga xam ne yow yaay déplacé wu pour yokk xam-xam ki nekk ci centre de santé bi. ak yeneen intervention yeneen intervention ya nga xam ne ce sera très difficile ñu lim ko fii mais parce que depuis longtemps nous sommes au Sénégal et aidons le ministère de la santé à mettre des œuvres des interventions ya nga xam ne au impact laa ko mën a wax pour que santé des populations bi ñu améliorer ko. ñu gis ne ci ayu bi ñu génn USAID lancé na ab programme bu mu duppee santé urbaine ndax mën nga a xamal programme boobu ci lan lay yëngu ak ñan lañ ko jagleel ci askan parce que tamit question bu importante la parce mooy premier projet bi nga xam ne USAID def na ko jëglee ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci ville yi mu ngi wax ko projet santé projet boobu mu ngi yëngu ci euh, santé maternelle mooy wérgu yaramu yaay yi wérgu yaramu doom yi ak wérgu yaramu ñii di soog a juddu parce que su ma ne ñii di soog a juddu mooy les nouveau-nés euh, xale yi nga xam ne moins de cinq ans la mais aussi day yëngu ci planification familiale di yëngu aussi si nutrition waru lekk beeg loolu nutrition di yëngu aussi si paludisme parce que paludisme douze zones nord yi rek la ñuy soutenir mais notre programme paludisme quatorze régions yëpp lay lay soutenir. et programme bi aussi dafa am benn volet bu bu important mooy euh, ndox mi ak hygiène bi ak assainissement parce que xam nga banlieue bi inondation yeeg ndox yi di taaj yooyu yëpp dafay nekk donc projet boobu aussi dafay yëngu si eau hygiène et assainissement. lan moo tax ngeen taamu zone yooyu ak ñaata at ngeen fas yéene jëmal programme bi foofa. parce que en fait euh, programme bi Dakar la nekk dafa couvrir euh, trois districts su ma ko mënee wax noonu mooy le district de Kër Massar de Yëmbal et de Guédiawaye lu tax nag ñu choisir ñooñu parce que dañoo xool ne indicateurs yi de santé yi surtout santé maternelle bi deeteelu yaay yi ak euh, ñi di soog a judd ak xale yi mooy am mois de cinq ans dafa yokk trop foofu noonu donc ñu ne nañu fa implanter projet bi mu nekk benn projet pilote ñu fay ñu ñaar def ay intervention à haut impact foofu noonu pour xool yan résultat la ñuy am et de mooy que bu ñu fa amee ay résultats ya nga xam ne satisfaire nañu satisfaire ministère de la santé dañu ko bëgg a yaatal ci yeneen villes Dakar yi loolu moo tax mooy suñu mbebet dans dans la région si cinq ans yi dinañ fa dugal lu mat huit milliards de francs CFA incha allah.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 Bonjour chers auditeurs, Info Santé reçoit aujourd'hui Dr Fatou directrice adjointe du bureau santé de l'USAID. Dr Fatou bonjour. Quelles sont les priorités stratégiques de l'USAID en matière de santé En fait, euh, pour l'USAID, l'objectif c'est d'améliorer la santé des populations sénégalaises de manière durable. Ça c'est l'objectif à long terme. Mais à court et moyen terme, notre objectif, c'est d'améliorer le système de santé de manière durable, euh, dans le but de réduire la mortalité maternelle, qui est actuellement à 237 pour 100 000 naissances vivantes, et euh, de réduire la mortalité néonatale, qui est actuellement à 21 pour 1000 naissances vivantes, de réduire la mortalité des enfants de de 5 ans à l'horizon 2030, et de lutter contre les maladies aussi de contribuer au de l'épidémie à VIH-Sida. que nous faisons actuellement, nous appelons le ministère de la Santé à renforcer son système de santé. Ce sont les résultats attendus, à accroître l'accès aux services de santé, mais aussi la qualité des services, mais aussi d'impliquer les populations, les communautés

santé des populations sénégalaises. La vision où toutes les populations, les ménages, les collectivités ont un accès aux services de santé. Donc nous, le programme que nous avons élaboré, nous l'avons calqué sur la politique nationale de développement sanitaire du ministère de la Santé. Alors docteur, pouvez-vous nous dire euh, s'il y a des partenaires de l'USAID dans la mise en œuvre de ces différentes activités dans le secteur de la santé, notamment au Sénégal Oui, nous des agences d'exécution. concrètement notre programme. Nous avons des agents d'exécution avec qui nous travaillons partout dans le Sénégal. Actuellement, avec ce programme 2021-2026, nous avons quatre partenaires bilatéraux. Par exemple, dans les régions sud où nous sommes, c'est RTI International qui met en œuvre dans la région de Durbel, la région de Kolda, la région de Sédiou, la région de Tambacounda et la région de Kédougou. Nous avons un mécanisme au niveau central qui aide le ministère dans le renforcement du système de santé et c'est mis en œuvre par Chemonix International. Et lancé euh, tout récemment le projet santé urbaine le vendredi passé et c'est mis en œuvre par PAF. Et euh, un autre programme qui nous aide dans notre programme G2G, c'est le programme gouvernement à gouvernement parce que à côté de ces agences d'exécution, nous avons aussi un mécanisme de financement direct avec le ministère de la Santé. Nous donnons de l'argent, de, des ressources directement au ministère de la Santé et nous l'appelons mécanisme gouvernement à gouvernement. Et ça, c'est le gouvernement des États-Unis qui donne des ressources au gouvernement du Sénégal pour mettre en œuvre des activités dans la santé. Euh, projet dénommé Santé urbaine que vous avez lancé récemment. Quels sont les objectifs et L'objectif de ce programme Santé urbaine, c'est d'améliorer la santé des populations au niveau urbain. Je peux dire que la santé urbaine, c'est le premier programme que l'USAID a au niveau urbain, si je peux le dire comme, ça, pour essayer euh, d'améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, le paludisme, mais aussi l'eau et l'hygiène, l'assainissement au niveau urbain. Et ça touche plus particulièrement les populations vulnérables. Donc c'est la première fois que nous mettons en œuvre un tel programme en milieu urbain. À Yembel, à Kermassar et à Guédiawaye. Pourquoi ces trois localités euh, Nous les avons basées sur euh, les indicateurs de santé parce qu'après euh, analyse des indicateurs, nous avons vu que les indicateurs de santé au niveau de ces zones en termes de mortalité maternelle, en termes de mortalité infantile et de mortalité néonatale, les indicateurs sont très élevés. C'est pourquoi nous avons choisi ces trois zones pour un pilote, parce que comme je l'ai dit, c'est la première fois que nous mettons en œuvre un tel programme en milieu urbain. Et donc, nous allons voir euh, mettre en œuvre des activités, des interventions en partenariat avec les collectivités locales, parce que tout ce que nous allons faire, nous allons le faire avec les collectivités locales, avec les organisations de la société civile, mais aussi avec le secteur privé, parce qu'à Dakar, il y a beaucoup de points de prestation, c'est dans